barakaatu maa ngi nuyuwaat ñépp te di leen bu baax itam ci bisub ajjuma ji bëgg a joxe rek ab ndénkaan boo xam bëgg naa ñëpp bàyyi ci xel yaakaar naa ni ku ci bàyyi xel dina la jëriñ àdduna dina la jariñ itam àllaaxira mën naa bañ a gudd nag waaye ku ko seetantal lu mu gàtt gàtt rek dina gudd fi yow. dama bëgg nu xam ni sëriñ Tuuba woowunu jëmenu ci boppam woowuñu jëmenu ci bokkam def noo woo jëmenu ci boroomam te jamono ji ñuy dund ñu bari ci nit ñi dañoo fattu fi sëñ Tuubaa di joxañ gisuñu ko ñu bare ci jamono jiit dunoo tëx li sëñ Tuubaa di tegtale dégguñu ko te nag jot na sëkk ci def taxaw seetlu xool ngir ku ne mën a xam sëriñ bi li muy joxoñ ndax gis nañ koom déet li muy tegtale itam ndax dégg nañ ko am déet koo gis nu àddunaam jege rekk lay la moom lay jox jotam moom lay jox dooleem moom lay xalaat te moom lay xemmeem itam ci xolam te adduna de li nu ci sëriñ Tuuba leeral ku ko déggoon doo def sa yitte ci moom misaaluha ajuzatun daniya loolu loolu ku ne war na ko xam adduna dafay ku ñàkk solo dafay ku ñàkk solo sëriñ Tuuba nee dafa mel ni màgget mu xubi daas boo xam ni gémmiñ gu xasaw te bindam ba itam ñaaw lool daram jagut waaye nag mu laqatu ci ay yére yu rafet sol ko ba ku ko gis jàpp ni dafay gone gu ndaw gumata sàkku waaye sëriñ bi nee na ña ko topp fan mujje mooy rëccu màtt seen baaram ngir am mbett ci nanu foogoon ni na la àdduna mel ak bëñ gindikoo nañu gis ni noonu la àdduna mel kon nag nan yeewu xam ne àdduna bii yàgg-yàgg dañ fiy jóg dund guy jeex la te feenu jëm nga xam ne moom lanu sëriñ bi xemmem loo du jeex te lu fi waay nekkee rek sunu borom dana ko lijjanti bu ëllëgee nan góorgóorluwaat bu baax àdduna war nañu bari àdduna war na ñu bari ñoo xam ni ña ngay mat seen baaroom di rëccu te mënatunoo dellusi si Sëñ Tuubaa nee na feenu jëm ku toppoon yàlla fii bon àggee di nga rëccu waaye ku fi toppul woon yàlla itam bon àggee dinga rëccu ña toppoon yàlla la ñuy rëccu mooy lan ko jot a jox ci jot dañ koy xeeb lool rëccu ni bu nu sañoon la desoon ci sunu jot yépp moom lañ koy jox ndegam ñoo ñooñoo rëccu nag asamaan ña yàlla ginnaaw jublu àdduna maa ngi soññ sama bopp te di leen soññ adduna ak melokaanam wii nan ko xam nañ ci teele a yow fi ne kat yewu jot na sëkk de yewu jot na sëkk sunu sang bii de di Serigne Saliou Touré lu ko waroon def na ko gindi nanu yar nanu jàngal nanu tàggat nanu ba xëy tey wan nu ginnaaw ñibbi ci boroomam képp ku nelawati defoo ko kenn sa bopp rekk nga ko def nanu yeewu te gindiku te jaamu ji yàlla ku ko deful ku ne perte nga lépp lu taxaw fi sa kanam yor melokaan wu nuru ni am na solo ba nga tollale kook sa boroom ci sa xol bii baa sax loola gën laa ñor ci sa borom ne la wóor ni ci rëccu rekk ngay mujjeek moom nan yow yow jot na lool yow jot na lool yëngu bi bari na lool waaye lu ci jëmut ci sun boroom ci perte rekk la jëm te nag ku xool bisub Sëriñ Saliou ture bii nga xam ni lii moom jëf ji moom nga xam ni moom la def suñ boroom kenn mënu ci dara dara dara def na ko te tàmbaliwu ko woon daana ko def jaar ci ay kilifa yu baax te kenn mënalu ko dara mu yegsi ci moom te du fa yem war ngaa xam ni laxasaayu waat jot na maa ngi ci soññ sama bopp te di ci soññ mbooloo mépp ci ñu xam ni ku ci ne na xoolaat boppam te fexe defar ab xolam fu waay mën a ne lu foofa xumb xumb xumb xumb lu foofa wéet wéet wéet wéet wéet wéet bul am yitte lu dul sa boroom subhanahu wa bët yi nañ bàyyi xel ci li muy xool nopp yi nañ bàyyi xel ci li muy déglu làmmiñ wi nañ bàyyi xel ci li muy wax tànk yi nañ bàyyi xel ci li muy dox ba mboolem cër yi jeex sunu biir yi itam nañ xool luñ ciy dugal ndax kat yii ma tudd ak yi ma tuddul yépp lu ci waay jëf ci lu baax ca xol ba la jëm waaye lu ci waay jëf te waru koo jëfit ca xol ba la jëm te xol ba kat mooy lépp nanu wàññ wàññi wàññi bëgg àdduna gi nanu wàññi bëgg àdduna gi bëgg yàlla ak bëgg àdduna mënta maase daje ci ab xol mënta nekk sun boroom ku sab xol fees dell ak bëgg àdduna mu génn nan xam ne lu nekk ci sunub xol te du bëgg yàlla lu ñuy alag la maa ngi ci soññ sama bopp te di ci soññ ñëpp na nuy jàng alquran lu bari na nuy jàng xaside yi lu bari na nañuy jël sunu kurus yi di ci tudd yàlla na nuy julli na nuy woor te bañ di xaar ba weeru koor jot na nuy sawar ci dox jëm ci sunu borom te mooy di ko jaamu te tayyeel ci sunu xol ak ci sunu xel ak ci sunuy cër mooy yàlla mooy yàlla nag buñ ko waxee mooy lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko lépp loo xam ne danga koy defte doo ci am tiyaaba ab taalibe war na ko jommale boppam waxantuma la ak loo xam ne bàkkaar la koy jural dëgg la ay nit lañu te bu ñu waxee nit mooy ku matadi waaye saa boo xamee ni ak matadi feeñ na ci sunuy wax baa ci sunuy jëf baa sax ci sunu xalaat nan dellu ci yàlla fasaasa tuubal ko nan dellu ci yàlla fa saasi te jéggalu ko nan delluwaat ci yàlla fa saasa ci torox lu jëm ci moom te xool fa ñu war a teg sun tànk ñu teg ko fa maa ngi leen di xamal ni sun boroom moo yilif ñëpp kenn yilifu ko kenn yilifu ko moo yilif ñëpp waaye képp ku xool taarub àdduna bii baa ngay xool nit ñi ak seeni njayal baa ngay xool lii di nuru ay njariñ ci àdduna ba tax nga woyofal sa diggante ak sa boroom def nga loo xamut bisa ngi dikk boo ëppoon alal ci àdduna bi itam di nga xam ni amoo dara ndax di nga ko won ginnaaw te doo ci man dara boo ëppoon ay kër ci àdduna bi bisa ngi dikk ñu génne la kër yi ci àll ba lañ la jëme oto yi rafet yi yi gën a rafet boo ko moomoon bisa ngi ci doo ci dugg ci am mbaar lan lay yóbbu wala cib corbillard waaye sa oto bopp ba ñeneen ñeneen a ciy dugg boo ëppoon nit ñi ay yëre yitam noonu dootoo ko sol perkaal la ñuy uti adduna ku ko xam doo ko bëgg ku ko xam doo ko topp nan delluwaat ci yàlla nanu delluwaat ci yàlla maa ngi ci soñ sama bopp te di leen ci soññ yéen ñëpp jaajuwaat kat jot na jot na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk soññeeb sun boroom dikkati na ci ñun te bëgg naa mu dugg ñëpp nan delluwaat ci moom te xam ne lu dul yàlla du dara ku woon yàlla ginnaaw alku nga ku woon ginnaaw yàlla yàqu nga te kat ni ma ko ñàkkee yéene sama bopp noonu laa leen ko ñàkkee yéene sëñ Tuuba woowu woon jëminu ci kenn baa ci lenn lu dul sunu borom subhanahu wa taala nanu jaamu yàlla nan jaamu yàlla moonu fi indi te moonu fi bàyyi nan ko wéetal nan ko ber nan xam ni njariñe adduna yeeg àllaaxira yépp ci loxoom rekk la ne dox jëm ci yàlla nag dara ëpp ci njariñ jaamu ko ak luñ la mën a wax lu dul lii kala ko wax xalaatam la la wax waaye jaamu yàlla amul lu gën a dox jëm ci borom bi ci jaamu yàlla ndax loolu la nu sàkke wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni jaamu gi itam ay faratala la ak sunna ak lu nu sopp ay ngëneel nan màng lépp buñu ñu ci dara bu ñu gàttanlu ci dara te saa bu ñu ni tooñ nan ko nan toroxlu nañ tuub nañ rëccu te dellu ci moom lii daal ab soññee la boo xam ne maa ngi koy tàmbalee ci sama jëmm waaye mu àgg ci yéen mbooloo mi yépp waxi nit ñi tagg yi ñu lay tagg ak kañ yi nañ ko bàyyeek ñoom xëy na la ñuy wax ñoom dañ koo gis waaye yow li nga xam ci sa bopp te sa boroom xam ko dundal loola ko ci nekk ci ñun xam na ni fa mu war a teg tànkam dëgg-dëgg ci digganteem ak boroomam des na loole nañ koy xool waaye aras ngay fanaa ni ji nit ñiy wax ak nit yàlla piir nga ji nit ñiy wax ak amoo dend amoo moroom ji nit ñiy wax ba mu ñu yëngal sëriñ bi dafay wax ni wala yaxurraka maqaalu nnaasi haada alfata min aqyasil aqyaasi nit ñi wax ji niy wax naan ko sell ngaak yaa gën a tedd yaa gën a màgg sëñ Tuubaa nee na bu mu ñu war nee na bàyyi bi muy bàyyi ñuy bàyyi ci barab yi di ñëw di la ziyaar ak di la màggal loola itam bu mu la war dañ la réere rek te nag balil insaana ala nafsihi basira nit moo gën a xam boppam ñëpp nan góorgóorluwaat bu baax yëf yi nekkul ci col yi yëf yi nekkul ci yii nit ñiy gis yëf yi dëgg dëgg dëgg dëgg fan la ne mooy sun boroom minu nu sàkkoon muy gis ni lam nu indee woon ñoo ngi ci lii daal mooy soññe bi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu